alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala nicmati lislam wa kafa summa salaatu wa salaamu ala ashrafi alalamin sayidi alawalin walaxirin nabiyu rahma alladi arsalahu allahu rahmatan lilalamin سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أما بعد أيها المشاهدون الكرام في تلفزيون سونو لابل تي في نحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة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 joxaat leen ndoxub xol bi santati sunu boroom ci bëccëgam yu màgg yii nga xam ni wenn bëccëg meloon ni moom tàllal loxo yàlla feeñalaat ko doon gu ñu doon ay jaam di waxaat allahu akbaru kabira walhamdulillahi kasira wa subhaanallahi bukratan wa asila feeñalaat ak jaam waaye feeñalaat moom ni mu nekkee buur joxaat ko lépp féetewoo waat ginnaaw doonaat ay jaam parce que loolu rekk musaala nit mën a tappe garaat kër yàlla kër yàlla amul benn grade Moussa bu fa rëy bu dul doon fa jaam sunu borom nee na yéen ñëpp amul kenn illa aati rahmaana abdan lu dul kenn ku ci ne bis booy ñëw doo doon dara lu dul jaam Moussa loolu rek war na tax ñun ñëpp ku ci ne dal def ndànk ñu ngi ci feet feetu nanu ko yal na yàlla nangul nu ko ñu ngi ci feet feetu nanu ko yal na yàlla nangul nu ko waaye Moussa ni ma ko waxee woon rek feet gi ñetti fan la kon nag ñu ko feetu démb ñu koy def tay ak ñu ko def bërki démb ak ñu koy def suba ak Moussa ñëpp rek yal na yàlla nangu eh, feet nag musaa war na am résultat ci nit feet gi lan la doon ñëw pour def ko ci ñun mooy Moussa dañu doon jubaleeg sunu borom dañu doon sunu borom c'est parce que moo tax ñun daal jullit ñu musaa war nañu di xam mbir mu ne bu ñëwee lan la dox si xam nga mbir boo xamee li muy dox dana tax nga orienté wu ci loolu gën ko bàyyi xel faw nu gëm ni feet gi dafa ñëwoon pour jubale ñëw sunu borom ci lum ñu fekkoon ci niveau daf koy yëkkati parce que waxoon naa la fi Moussa ne la barkaati démb xamu barki démb ma wax la ni Ibrahima mi waral coow li moonten de yàlla da ko doon da ko doon xool rek doon ko càmbar fu mu toll ci moom mais yàlla amul intention de reylu Ismaïla non non non non Moussa moom beneen bi ñëpp xoolal yàlla moom xamoon na ni Ibrahima mi du ko du ko mas a bàyyi muy rey Ismaïla moo tax wa fadaynaahu bi zabhin azim déggoo yàlla nee na bi ma bi ma yëgee ni Ibrahima am na intention bu rafet ni moom ku man maa ko gënal xoolal ci laa ko libéré waaw Moussa ñun ñëppit ñun ñëppit xoolal loolu am ñàngat lañ ci war a am mooy ku ci ne war nga libérer sa xol ba yëg ni yàlla doog nga fi ne fi mu toog dara amu fa nga doog a am liberté wu nag bëgg leneen lu la neex <laughs> moo tax gis nga Moussa léeg nga dégg ko naan kenn du bëgg de dara ankay ah, nit da ay façon bëgg la musaa mbëgg yi ñoo bokkul nit ni muy bëggee jabaram ni muy bëggee yaayam sa bokkul ñaari bëggeel sa bokkul yàlla xam na ko te boo ci nee bëggeel la waaw am na benn xaritam boo xam ni mu ko bëggee suñ deful ndànk sa dañaa moom la gën a bëgg jabar ji fekk non affaire ay ay ay niveau la fu ne maam fu ci ne ak na na nga war a bëggee mais bu yàlla Moussa dafa am palaas boo xam ni soo caaxaanee ba sa jabar dem toog fa juum nga boo caaxaanee ba sa sëriñ dem toog fa laa wax juum nga soo caaxaanee ba sa liggéey bi ngay liggéey dem toog fa juum nga boo caaxaanee ba sa xarit dem toog fa juum nga Ibrahima nag foofu la yàlla doon xool ndax dara toogu fa yàlla doon xool Ismaïla mii baa toogul foofu ci Ibrahima oo tax mu ne ko demal ray ko waaw loolu rek la de parce que yàlla foofu la vérifié ne mais Ibrahima euh, foofam laa bëgg a xool ndax Ismaïla toogu fa parce que moom damay gis li muy tudd Ismaïla bari na trop xaaral ma vérifier mu tax gis nga Moussa yàlla bu doon baatu fiir dañ naan moom fiir ci moom la yem ñi ñëpp di fiir fiiru fiiruñu fiir ci yàlla la yem ndax yàlla moom fi mu toog moom bu xoolee sax man ma waxuma ko fa toog moom bu xoolee sax nga am koo fay xalaat ne war na fa mën a dem rek yàlla attaqué la parce que keroog bi mu ne Moussa wa ma tilka bi yaminika ci àll bi ci àll bi Moussa jóge kër Soaybu Soaybu may ko doomam Moussa sa turandoo xoolal ci lëndëm gi muy dox ci àll bi diggu guddi jaaxle nag xamatul yoon wi mu séen ab benn tàkk-tàkk bu ne bàyyil ma dem ca taxaw loo soxnaam njabootam taxaw daal di dem foofu imkusu inni anastu naaran la alliya aatikum minha bi xabasin aw ajdu ala naari huda Moussa dem bi mu yegsee safara wi di arrière Moussa topp safara wi yëgul ne safara wi day avancé ba safara wi sori Moussa yegsi nag jékki-jékki dégg kàddu yàlla yàlla di wax ak moom Moussa mu ne ko labbayka mu ne ko ana allah laa ilaha illa ana faabudni Moussa ma ne yàlla <laughs> allahu akbar ah Moussa sa turandoo keroog tiit na a <laughs> ah, jaadu na nag Ah, jaadu na nag kàddu yàlla ko dégg war ngaa tiit waaw ah, Moussa biñ ko laajee lan nga déggee kàddu yàlla nee na sama bopp bi daal ci karaw gi ba ci sama tëstan yi amul lu déggul lépp doon dégg mënumaa wax ci nopp laa ko dégg mënumaa wax samay bët moo ko doon dégg man mënumaa wax sama bopp ko doon dégg mënumaa wax sama tànk yi l'essentiel daal looy sama yaram yëg naa ne mu ngi dégg kàddu gi waaye xoola bi mu waxee yàlla ba ñu déggoo ñoom ñaar ba musaa ñemee yàlla xoola ba mu commencé ñeme kàddu yàlla nag yàlla da ko ne Moussa waaw ma laaj la Moussa loo yor sa loxo <laughs> ama tilka bi nekk waaye déglul Moussa dafa wax ci yat wi lu baree bari lu tax man jàpp naan sax Moussa <laughs> war nañ waat ñi léeg-léeg yi ñuy dóor de léeg-léeg ñu waxal nit loo xam ni ne moo ko yor ci ñun <laughs> est-ce que yàlla duñu wax sànni leen ko sax parce que musa moo ni daa wax rek ci yat wi yu bari de yàlla na ko sànni yat wi parce que li nga wax ci moom daa bëgg a bëri mu tax sànnil yet wi foofu ci alquran la tax yàlla wax ko ko mooy wax lu bari ci yet wi yet wi ci lay bàcc garab yi yet wi ci lay dàq till yi yet wi ci lay nangam yet wi ci lay nangam wax a wax ba daaneel ci yet wi affaire bi bari nag yàlla ne ko musa alqi asaka sànnil yet wi moo tax mu fassiri dañ na sànnil yet wi du sax sànni ko nii waaye génne ko ci sa xol <laughs> waaw lenn ci ahlu fuqa lenn ci ahlu maanaam ñi nga xam ne ay nitu yàlla pire lañ ñoom dañ ne sànnil yet wi foofu yemul rek ci sànni ko nii mu doon jaan déedéet sànni ko mu génn ci sa xol Moussa génne ko sa xol parce que fi nga ko def la parce que nag euh, Moussa yëgu ni sa turandoo yat woowu lim ko doon defal a <laughs> ah, fii kenn amu ko fi yat mel noonu de ah Moussa yat woowu boo tëddee nelaw imaginer yat moom boo tëddee nelaw say jur boo séenee tilli di ci ñëw yat mi mooy naawal boppam dem dóor tilli bi ñëwaat tëddaat <laughs> ah ku fekk ku fi amagum yat woow <laughs> ah noonu nañu waxante dëgg nag Moussa ku fi amagum yat woow moo tax musa bëggoon yat wi ñun nag ko fi amoon da nga koy def yàlla parce que fii ngay am sa benn waay rek mu génn la ci benn problème rek nga bëgg koo jël <laughs> samp ko palaasu yàlla sa waaye budul woon ak moom xoola foo toog bëgg ñoo dam moo tax faaw ñu def ndànk mbokk yi xam ni yàlla dafa fiir bëggul nga jël sa dund dénk kenn dénk ko mbir mi moo tax sunu feet yu mel nii dañ ciy jànge ana nan la ñu def pour jege yàlla mbokk yi nanu génne sunu xel ci ñépp te jege ji sunu borom feetu nanu ban résultat lañ ci am résultat gi mooy yëg nañu ne yàlla defal nañu examen te mooy loo nañu moo tax gis nga Moussa rendi xar wi lan la mooy rendil jikko yu bon yi waaw rendil sa melokaan wu bon wi rendil sa kàddu yu bon yi moo tax Moussa kuy rendi sa xar war nga xool yan nga rendi waale rendil sa yu ñaaw yi rendil yépp nañu dee moo tax yàlla du xar mi la soxla waxoon naa la ko démb yàlla soxlawul xar mu rëy mi waaw wol xar mu rëy mi lan la soxla maanaam nga rendi ci sa jikko yi jikko yu ñaaw yi moo tax Moussa am na koo xam ni tëbaskiwul te billaay moo gën a tëbaski ki ray xar parce que moom fexe na ba jikko ju ñaaw ray na ko ci ci ci ci xolam fexe na ba roy na fen fexe na ba rendi na jëw fexe na ba rendi na nangam rendi na nangam moo tax dama bëggoon ginnaaw bi nu rendee sunuy xar Moussa jug nañu nag maa ngi ñaan ku ci ne rendil jëw rendil fen rendil wax lu ñaaw Moussa billahi bu résultat tabaski amee kenn dootul audio bon résultat tabaski bis bu gañee bis bu ñu amee résultat tabaski audio bu bon dootul am parce que day fekk rendi ga ci sa xol wax ju ñaaw kon dootuma audio mukk di wax ci Moussa safaan parce que damaa rendi ci sa moo tax du rendi xar mi moo tax gis nga Moussa faw nit ñu ñu waxtaan ak ñoom affaire bi du xar mi moo tax takk sa xar mu rëy yow ci wanewu boobu rek yow yaa ngi jikko boobu na nga ko war a rey balaa ngay rey xar mi yow xar mi waroo ko rey ren yow xar mi warul dee ren <laughs> yow ban xar nga war a rey mooy xar mi ñu tuddee rëy te mu nekk ci yow ba tax nga jënd xar mu rëy di ñuy jaay affaire yow xar moom nga war a rendi ba pare moo tax am na ñoo xam ne rey xar waragu leen ñoom rendi jikko moo leen war ba pare neexu la wax nag ndax wax ju xaw a sori la waaye mbokk yi waxtu wi damaa dab mais bëggoon naa ko gën a décortiquer waaye maa ngi du ñàkk incha allahu rabbi ci biir semaine bi rek dañ koy gën di waxtaanee ndax nag war na am résultat bu mu def ci ñun. gaa yaa nga ca màkkatal mu karam di waajaat pour ñibbisi yal na la teg leen ci yoonu jàmm ñun ñibbisi ci jàmm fekk ñu fi ci jàmm du ñàkk sax mën a yéen incha allah bu ñu dajawaatee ci jilsatu bi daanu waxtaane waa ja ñu demoon ziyaara ji ku fa jóge melokaan yi mu soxla nga amee ko. te lamboo ko yenu ko àndaaleel ko sénégalais yi ba ñu nit ñu copier ci alxaaji yeeg ajaratu yi ba ñu bokk ñun ñëpp wenn yoon wi ñu war a jaar te mooy yoonu njub wi yàlla rëddoon ne haza siratun mustaqimun fattabi'uhu wala tattabi'u subula mbokk yi maa ngi ndokkeelaat ñëpp balawaat xàq ñëpp ñaan sunu borom yàlla na yàlla may nu nu fekkewaat ay at mu ziyaara sunu directeur Hadj Makhtar Sylla ndokkeel ko ñaanal ko yàlla yàlla na yàlla dëgëral ko yokk ay biram biir ay biti bi jaahi sayyidul wujudi sallallahu alayhi sallam sama jigéen ajaratu yaa xadi Diouf ma ndokkeel ko ndokkeel ajaa xadi Sàll waaye ndokkeel mboolem soppee xarit yi ñaan sunu borom yàlla na yàlla defal nu dégg ak topp bi jaahi sayyidul wujudi sallallahu alayhi wa sallam iza aradtum salamatal fattabi'u muhammadan wa ariu hayatal umami bokkee asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ومن أضل ممن يدعو من